mais mais mais yaa ngi yaa ngi yaa ngi doon tudd léegi benn mbër muy Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 dafa mel ni dafa am équation mille inconnus digganteem ak Bombardier loolu itam faw ñu wax ci. ah non naa la wax nag de wax wax moo gën jàng alxuraan Bombardier mii dama koy wax dama koy wax sama benn xarit boo xam ne moom Bombardier dañuy dañuy gisante affaire yooyu benn grand buy liggéey boulanger su ma ko nee yéen fere làmb ji juróomi dërëm du ngeen ko si def ñëw daanu si moo leen indi mu naan ma déedéet bu lox loolu ñun ñu ngi ngemb affaire yooyu noonu dëgg la Bombardier daanoon na Balla Gaye mhm. hmm. deuxième fois Bombardier champion def na fi ci lu ne ci làmb mais nag tamit combat ak Balla Gaye bii di ñëw amu ci benn sens bu dee wax dëgg rek moo neex yàlla mbër lañ nag ku ne mun naa daan sa morom mais Bombardier amul lum mu ciy prouver hmm. bu daanee amul lu mu na ñëw daanu jaaree ba zibile waale librel VIP bi tuuti. mais yow yow dafa mel ni caat dafa am loo réeré mbir ah yow yow yow yombalal nga combat bi Balla Gaye nga dafa am loo wax sànq ni Modou Lô day daj ay coono pour mhm. nekk en forme mais Bombardier mhm. Mhm. kooku bu entraîné wulee sax day am doole xam nga loolu Bombardier bu maintien wee sax ah. day am doole te yow fi ngay freiwee yaa ngi wax sànq social bi Bombardier fi ngay freiwee vingt millions social moom cinq cent mille la fay frais ndax daa xam kër yu sedd yi kër yu baax yi loolu ñëpp xam nañ ko. <laughs> wala wala wala moom yow gëmoo gëmoo ni que Bombardier xam na kër yu sedd yi. non xam na kër yi de mais naa xamoon naa ne bër bu naay la Bombardier. waaw <laughs> <laughs> waaw ba mbër bu la ne Bombardier du génne saraw cinq millions de xalaatu ko. mais est-ce que du gars yi ñooy giraawal làmb rek mais boo dëkkee ci ci petite côte bi da ngay xam kër yu sedd yi de soxlawul yenn frais yi de wala. non mais naa la wax leen de. Hmm. Serigne Serigne Serigne moom boo bëggee dëgg dëgg dëgg dëgg muy fee ci yow di la ñaanal da nga fay li ko jar mais boo bëggee neexal Serigne bu tëddee guddi day nelaw de. <laughs> neexal neexal moom amul de. ay bombardier yi dañuy neexalaat instant bi dañuy ñëw ne ah père xam nga rek sa waay la ñuy bëreel père père ko war a daanaat de fii ko jaaral lañ ko jaaral waa bi damaa am léegi rek ñu ko waa après dañ am nañ def boo xool ko benn cinquante mille loolu benn cent mille waa bi da ciy yónnee nga laal lan <laughs> ko cat di mais ñii quoi non mais tamit mais maanaam du yombal sax mais dama xam ne Balla Gaye da cee bëri chance quoi. ok léegi nag léegi Balla nag bëri chance bi nag xam nga Balla nag la moo nar nekk problème ak Bombardier gis naa ko ci premier combat Balla dafay bëgg a bëri Bombardier di daan Bombardier nu ko ñeneen ñu ñeneen ñi doon daanee Bombardier moom noonu la bëgg di daanee Bombardier maanaam dafa bëgg a daanee Bombardier comme Gris Bordeaux nu mu ko doon daanee wala comme Yékini nu mu ko doon daanee maanaam damay taxaw xaar ko ma dóor ko benn coup direct. parce que combat Balla Gaye Bombardier laa mos a gis Balla Gaye dóor direct ma dóor ko direct ba pare reculer mu ñëw ma aspirer ko pour daan ko mais xam nga loolu stratégie wu Yékini la stratégie wu Gris Bordeaux la mais du stratégie wu Balla Gaye Balla bii yoon est que dafa war a indiwaat jam direct xaar Bombardier wala arbitre dafa war a siffler mu indi leneen wax ma lu Balla Gaye war a indi pour daan Bombardier. non moom maanaam mooy li nga wax rek xam bomb xam fi ñu koy jaar xam ko xam nga xam nga bombardier Balla Gaye ci la la tënku woon mooy bombardier boo ko bëggee daan foog nga ërtal ko arrière bu ñëw sa kaw. Mhm. parce que bu ñëwee day déséquilibré quoi ci lay gën a oyof parce que konkal buy dox di ñëw. lay mhm. gën a oyof ko buy arrière. Mhm. looloo taxoon mu def loolu rek mais bam mais Balla Gaye du cuune. te te boo xoolee tamit ni ko bombardier daanee mooy dañoo daje ñoom ñaar ñu dëbbante naax dañoo buuxante rek bombardier plaqué ko. taf ko wéeru ko. saa fekk na boo fekk na Balla jël coup boo fekk na Balla jël coup. waaw dafa jël coup coup la jël de ba pare coup ponkal ku ko jël dina am li ci yow. Mm-hmm. Mm-hmm. lenn moom dafa am booy bëreeg bombardier moom éviter kurfañam daal la. Mm-hmm. parce que dafa am force de frappe quoi. ba pare tamit li nga wax tamit dëgg la mooy të. mooy maanaam comme dëgër bopp dafa nekk si moom de xëy na léegi la rek mais bombardier dëgër bopp. ak ak ës dafa nekk ci moom de. Mm-hmm. parce que boo xoolee moog Tapha Tine Tapha Tine dóor na ko du façon dóor bu ne. Mm-hmm. mais Bombardier ba léegi tëddul. Mm-hmm. dóor na ba muy bere. <laughs> bilaay daa dëgër bopp loolu am na mais tamit Balla Gaye tamit bërekat la quoi. mais man moom man moom man man moom laam am na laaj yi demee yow yow bës. wóor na yàlla man làmb ni ma ciy demee mooy saa su ne su ma gisee mbëru xale di bëre mag damay bëgg mbëru xale bi daan parce que loolu mooy ëpp avenir quoi. que mag bi. xam naa fi ngay mag ñi am nañ li ñuy am. mag ñi am nañ li ba pare def nañ fi li ñuy def ba pare kenn mëntu ko dindi ay champion lañ mais saa bi dafa jot xale yi ñëw teewaat làmb ji parce que gis nga làmb ni mu deewee nii dara mu lu kaa dund ralaat lu dul génération deux mille dix bi jëlee fi génération deux mille cinq bi. Mhm, mhm, mhm. loolu rek moo mën a yëkkati waar làmb parce que combat soog yi des ci àdduna ci foofu la des ndax xale yi ñoom ñëpp bëreeguñ seen biir boo xoolee si Siteu Ama Baldé bëreeguñ boo xoolee Boy Niang Ama Baldé bëreegul boo xoolee Sa Thiès ak ak ak ak kan ak kan laa mën a indiwaat Paul Sa Thiès Boy Niang ay Lac Rose. Mhm. ñooñu ñëpp ay mbër woon ñoo xamante dañoo waroon tëj ci biir làmb yi jëlee fi nekk fi. ay Forza ay Malick Niang. ay Forza ay Malick Niang ay Reug Reug. dëgg la am dañoo war a couvrir foofu noonu yëpp occupé ko. <laughs> Balla ak Bombardier bu ñu bu ñu bu ñu jàppantee ngemb foofu yow lan nga gis. Mhm. kan ak kan. ku nekk bu jàppee sa ngemb morom. nañ faa yàgg de. moom. Bombardier. parce que xamul tax. Hmm. Balla Gaye li muy bëri nga ñëw jëli ko. Balla Gaye boo ko jëlee ci la bëri bi di gën a neex. mais jàppal ma jàpp Bombardier daa diis bu jàppee bu jëlee tànk ba tànk yi sànni ko muur jël loxo yi ni ko da ngeen di buuxante rek wala arbitre bi ñëw tas mais foofu jël du ko mën a am de. boobu Balla Gaye mënu ko Balla Gaye mënu ko dóor caxabal bu ko Yékini dóoroon. mën naa nekk kay parce que Balla Gaye bërekat la mais Balla Gaye bëriwul li muy bëre ay xëcc taf ni caxabal. Bombardier mënu ko dóor dóor bu mu dóoroon Ibou Ndafa. ak mën a nekk ndax loxo bi daa diis. <laughs> bu dee loolu moom mooy dóor nopp yooyu dóor yooyu gën a bon bu ñu jàppante loxo loxo xam nga boobu la dóor wala làmb jooju noonu. man man li ma gën a gis lan la Balla Gaye nar a bëre gis nga Balla Gaye li ma entraîné combat bu mujj bi su ma entraîné waatee xam nga gis lay bëree làmb jooy mooy hmm. bombardier ni ko baabooy daane woon Balla Gaye noonu la ko war a daane waatee bu Balla Gaye entraîné li mu entraîné woon mooy arbitre mais Balla Gaye du bëree <laughs> loxo Balla du bëree ay loxo ci tànk Balla Gaye du guitare Balla du guitare waaw mais tamit mais tamit xam nga mënee na ko mais xëy na du ko def parce que tuuneewul noonu non mun na ko entraînement peut-être mun na ko entraînement mais Balla Gaye est-ce que mun na guitare ci arène xam nga dama gis ñu bëri ñu ne ngay des fois nga ne mbër bi muneewul lii yenn saa yi nga ne mbër bi muneewul lii mu am ku la weddi nan la xanaa seetaanoo ko mbapat xanaa seetaanoo ko entrainement mais xam nga mbapat ak entraînement dafa uteeg réalité arène réalité arène Modou Lo uh-huh. am na loo xamante ne muneewu ko Balla Gaye 2 uh-huh. parce que Modou Lo ci arène waneewu fi songu mbër songu mbër maanaam jël sa tànk daan la ci bariwul Balla Gaye itam wanewul daw jël sa tànk gitaar la waaw donc man gisuma Balla Gaye bëre loolu ci ci ci ci ci kii gitaar mooy jàpp jël ñaari loxo jàpp ci sa benn tànk liggéey ci loolu wóorul sax ci Balla Gaye ndax Balla Gaye poids lourd la te dafa njool bu waree jógee ci kaw pour ñëw ba ca suuf pour jàpp tànk ak ñaari loxo loolu risque la xanaa mu jàpp ci ngemb ci benn loxo jël beneen loxo bi mhm. pour ñëw jël bëtt bombardier maanaam benn loxo bi day jàpp ci ngemb li beneen loxo bi ñëw bëtt bombardier comme xaat comme ni mu daanee maam góor juuf nga xamante ni da nga koy da koy mun a kal rek genre tegal chaise genre affaire yu mel noonu. waaw léegi nag léegi léegi gis nga lool noonu nga wax noonu yëpp loolu am la. Mm-hmm. mais tamit xam nga làmb. Mm-hmm. li naan làmb kenn du ko bëri te ñëwagul yow na ngay préparer rek sa adversaire préparé mais bala gay mën na préparer loolu parce que xamul tax Balla Gaye dëgg la. daanu fi mbër ay jël tànk mais Balla Gaye am na ay combat yoo xam ne bi muy daan bay Diouf nan la ko daanee du dakaa daw paqueté ko fël ko mbëkk ko. waaw loolu muninam la. léegi nag léegi est-ce que mënul def loolu bombardier. ah mu maanaam mu paqueté bombardier waaw comme comme ni mu daanee tafaatin daal. comme ni mu daanee tafaatin buñ xeexee ci kaw ba pare. Ah, bu ko appelé ci kaw ñu dóoran xam nga bombardier daa xaw a nekk xaam moom boo ko ne kaa ñu rayante day jàpp ne da ngeen war a rayante rek. day fàtte ne sax sàcc am na Balla Gaye mën na ko woo ci kaw ñu rayante bu ñu rayantee ba mu nekk ko mu daw yëlla ko ci kaw daw jëli ji ci suuf te Balla Gaye am na rapidité boo xamante ne mën na ko paqueté sax ba maar ji daw rosu mu daw takk ndigali d'accord na yow daal yow laamu ji fi ko wékki daal mooy Bombardier ngaaka nga ko jàppee quoi non non du ngaaka de wékku ko ngaaka de mais xam nga Bombardier dafa mën a rayante de kaa ñu rayante da koo bëgg de <laughs> day fàtte ni affaire bi du du rayante affaire bi bëri la bi daa am rayante mais am na wor ci suuf Eh, am na solo am na solo am na solo am na solo <laughs>